du dëgg du dëgg du dëgg du dëgg du dëgg du dëgg du dëgg du dëgg ñii lan lañ bëgg a wax kon ñoom maanaam suñu yalwaan gi dafay këpp j'ai pas bien compris ñu renvoyé ko Dakar ñu renvoyé ko kaw Kaolack ñu lan la ñuy wuti Dakar ak lan la ñuy àttewaat fële kon maanaam dañ koy renvoyé waat dañ koy àttewaat lañ bëgg a wax ay bu yàlla ji di taw ngay fobeere pexem la bu nekkoon tey moom lañ jox dëgg appliqué nañ ko bu yàgg waaye comme ba léegi Sonko la ñu jox dëgg dañ koy renvoyé waat te nag def leen attention balay Cour suprême di ci ñëwaat bu ngeen sàggantuwul dina dure un mois wala lu ko ëpp <laughs> non non lii amul non non non non le bi ñu doon xaar adduna yëpp toog di ko xaar ba mu jot nii ñun ñëpp ñu jàpp ne instant bi ñu toll nii ça y fini maanaam dafa am na lu ñu ciy làqartiwaat encore non Sénégal du réew. lii defar nga ne moos réew la lii réew la lii jàpp sénégalais yi di leen foyee di leen ping pong nu mu la neexee lu la neex def yéen ñi jàngu droit mere naa leen trop yéen ñi nga xam ne da ngeen di génn ci télé yi xam droit xam li xam li yoon wax ngeen di ñu jox information yi yéen yéen nekku leen ñu nitu dëgg. su ngeen nekkee ay nitu dëgg bu ngeen ñuy jox information da ngeen ñuy tojal yax bi ne lii mën na leen cee fekk lii mën na leen cee fekk lii mën na leen cee fekk mais fii ngeen ñëw toog ci télé yi di ratatati naan buñ ko xasee àtte kay le bu soobee yàlla dina bokk wala du bokk mënoon ngeen ñëw wax nañu mën nañ ko renvoyé waat nangam ak nangam mais ñun tooguñu taxawuñu làmp bi tàkkul fayul kenn xamul lii lan la lii moo defe nga ne réew la lii du ci ñëpp ah, ñëpp kenn xamul la kenn xamul lan la yow buñ ne wóob ñu ne wóob wóob ñu ne ñu taxawaat lan fan lañ jëm ñu waxoon ne la 17 bu ñu ko xasee àtte saye day bokk bokk bu bokkul définitivement dootul bokk loolu ngeen fi génnoon taxaw wax ñëpp a ñëpp ngeen ñëwaat ñu naan renvoyé waa ne ko cour suprême lan la fi supprimé ma commentaire yi ñëpp ak ma naan baara xanaa yëgoo li xew baara xanaa yëgoo li xew mais bu leen ma sonal ak yëgoo li xew maa yëg li xew ak jàmm dañ doon jubilé France Espagne ñëpp doon jubilé jubilé boo xam ne matul cinq minutes affaire bi comme lancement film ñëpp jubilé ñu nekkoon ci école yeeg centre yeeg ñëpp a génn mbedd mi fees ñu jubilé matul 5 minutes ñu ne taxaw leen affaire bi comme oto buy daw départ freinal <coughs> réew mi lépp jaxasoo kenn xamul fooy teg sa tànk kenn xamul looy gëm ak looy bàyyi ah ba ne cour suprême lan lan moom lu tax supprimé lu muy xaar lan lañuy lan la ñuy renvoyé waat lan lii yëpp du ay tappalee ko nas lii lii lii réewu dëgg la lii réewu dëgg la lii lii ba kañ Sénégal bu yeboo jaay ko ku nekk jël sa wàll ñu effacer Sénégal ci Afrique bu dee Afrique cinquante deux pays la ñu def ko cinquante un Sénégal c'est fini ñu ku nekk jël sa wàll ña nekk Europe toog fa jënd fa ay bàmmeel ñu nekk Afrique mën a jël mbëtt mi dem leen